rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci ab yonentam sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul ñu ngi ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké sama borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér di ñaanal xalifa général de Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall sama borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér di ko ñaanal xalifa borom daaru Moxti encore une fois tey ñu continuer di santaat bu baax a baax di sant yàlla bu baax ci journée don de sant bii nga xamante ne si ne Madakaw daf ko organisé woon tey

Euh, def visite hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu xamaloon nañu ne seen banque de sang bi day manqué sang lu bari ñu ne nag jaaduwut tey ji population département de Mbacké toll ci deux millions et quelques habitants ñu jëm ci journée boo xamante si ne journée internationale la ni ma ko mën a waxee muy bis boo xamante ne si ne jàpp naa ne amuñu bis bu ko gën a màgg ñun murid yi muy bisu màggalu Touba ñu ne bis bi nit dafa war a jàngoro ci bis bi ñu saafara ko mu dellu waxantoo ma daak nit ñëw fii ci biir dëkk bi feebar dal ko fi mënta faju ñu ne nag li ñuy def mooy banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni ñun waa danañ ci def ay activités journée don de sang jàppale leen ci seen euh, banque de sang bi fexe ba deret ji moom nañ koy wut seeti Touba waaye hôpital Matlaboul Fawzeyni ba mu génn ci dëkk bi di ko wuti ji fenn te defe nañ ne loolu damañ amee initiative bi di ko def léegi ak sant yàlla bu baax ndax journée bii nga de xamal ko ko ñu wax mooy seen calendrier bi de saturé na lool lool lool ci biir màggal bi ñu xam ne kon pour euh, sensibilisation bi nga xamante ne si ne ngi ko ciy def ak population bi mel na loolu mi ngi feeñ ndax bu a Serigne Salif Mbacke waxoon hôpital Matlaboul Fawzaini ci seen banque de sang na leen bis dana mas a ñëw danañ di wut see deret fi waaye dootu leen ko wut si ñaan nga nangu na tey encore ñuy sant bu baax euh, responsable yi nga xamante ne si ne ñëw nañ fi ku mel ne Amar Ndiaye Angoloma chargé de mission à la présidence mi ngi ne ci sama wet nga xamante ne si ne Amar Ndiaye fépp fu mu teew ci adduna bi mën nañ ne président la fa teewal ndax ci biir muy loo xam ne waxooma ko sax ma yëg ko ci rajo bi rek danaa ca teew madame Mbacke léegi la fi jógee muy directrice bu SADAF di responsable politique APR Aïda Gaye honorable député gis ngeen ko léegi Cheikh Ibrahima Mbacke ñëw na fi léegi di jëwriñ kër Serigne Mountakha Mbacke di rakk ci lépp ci xalifa général de Mouride nga xam ne mooy bi mu fi ñëwee dafa teewal Serigne bi di nit ku baax te bi mu ko yëgee moom it def nañu lépp loo xam ne nit da koy def léegi Abdou Lahad Ka maire de Touba mention spéciale ndax journée bi Madakaw yàgg na di ko def mais nag ku ne xam ne ne dajale aw nit ñuy maye deret donc metti na ci sensibilisation bi ndax cent doole cent ñi nga xamante ne si ne xam nañ ko ci population bi yombul te nit ñi dañ ko ragal mais nag yàllaa ñu ci suturaal ba daaw ban ko defee liñ fi wax de mooy lii nga xam ne ma mujjee am nañ 75 te boobaak léegi nit ñi ngi continuer di maye te rafet nañ jot ne bala ñu fee jógee 100 personnes danañu maye kon jàpp nañ ne ñu ngi ci réussite totale Abdou Lahad Ka maire de ko ko waxee lam ñu njëkk wax mooy andi len bisse bi ban ko joxe bisse bi nam ko nam ñu ko waxo na la ko defé ba journée bi tay fépp fu mu toll ci ala dawme ñu def ko ci jàmm def ko ci ken mar ken xifut lépp je grâce à monsieur le maire Abdou Lahad Ka mam tierno Dieng ministre de l'environnement yabal na fi buna ma mel mi ngi ni ak Cheikh Abdou Lahad fay momit bam yegge événement bi lam ñu wax moy dana ci dana ci yónnee te bu fekke ma ñëw Touba bu soobee yàlla dina fa yegsi waye kam ko amna empêchement yabal na fi buna mi ngi ni momit di jarbatam di leppum mu ànd ak Abdou Lahad fay ànd ak délégation bam solo momit jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax kon daal euh, waxtu ci staffam la bokk bokk ci cabinam Cheikh Abdou Bali yónnee na fi bàcc soog sama xarit maa ngi koy gis léegi nii wax dëgg moom ñu am ci ak kontaan lay wax na daal tey Benno Bokk Yaakaar ñëpp teew nañ Serigne Danam si bismilahi mina cheytaani rajim bismilahi rahmaani rahim barke Serigne Saliou Mbacke c'est madame Ndiaye man Mame Fatou Diop moom Serigne Saliou Mbacke de la banque de santé l'hôpital waaw tey jii initiative bi mooy seen Fallou Diop moom moo woote woon tey ci safar bi bëgg a maye deret pour ñu am stock suffisant pendant le màggal de Touba moo tax ñu ñëw tey jii di jël. ama naa quatre-vingt-sept poches. waaye ñun ñu ngi sant yàlla bu baax de parce que li ñuy ñaan bu nangoo sonal borom ñaan suñu saal mi ànd ak ñun banque de sang Matlaboul Fawzeyni mooy la deuxième banque de sang du Sénégal te loolu ñaanu Serigne Saliou Mbacké ñu ko defal kon fi mu ne du ñu ne sang doy na ba kii nag mais mu manqué wu comme ni mu manqué ci yeneen hôpitaux yi ñi ngi satisfaire daal am nañ pour cent. ñu gis waaw xam nga Sénégal moom daa bëri ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy wax duñ ko xam dañuy yàq mais ku ñu mas jaay deret Touba ñu ne Faussène lañ ko jaayee sama numéro téléphone 77 632 67 72 ñëwal ci man nga dañ maa jaay deret naa ko lijjanti parce que ñun Touba duñ jaay deret Dakar peut dina am prix de cessation de la poche te du jaay parce que deret dafa am ay intrants intrants yi mooy fi mu ne nii bi may jël fii dinaa ci dépensé bala ma koy jox malade bi dinaa ci dépensé pratiquement 50 000 francs CFA yi nga xam ne ñoom dañuy fay ko malade yi CNTS da leen koy jox prix de cessation 7500 te loolu prix de cessation poche bi la mais deret kenn mënu jaay parce que man li may jël fii rek intrant poche bu ci ne dinaa ci dépensé lu ëpp fukki junni xam ma ko doon jaay kon dama ko jaay ay junne ki ñaari junni ndax dépensé naa ci lu ëpp fukki junni kenn jaayul deret à Touba ku wax waxul dëgg man maa ngi nii nëbbantuwu ma sama portable la ngi nii kuñ ko jaay ñëwal ne ma jaay nañ ma deret dinaa ko lijjanti man kon jaay jaayu la ko légalement parce que ñun Sococim amuñu ticket deret kon ki fekkee ne am na ku ko fi mas a jënd xanaa comme ko jox ci poosam la ko def waaye du poche hôpital Matlaboul Fawzeyni